jërëjëf mbokki internet yi ginnaaw ñu leen wa barakaatu ñu euh, naa ñoom yéen sa équipe ñëpp surtout waa wasaare. Eh, maa ngi leen di seetaan maa leen di gërëm ak seen taxawaay lépp seen émission lépp maa ngi sant maa leen di gërëm incha allah. Sow. Thierno Hamidou Sow. Mhm. boo tuuti rek ci sa jaar-jaar. Mhm. ak eh, li waral ñaam gi tey. waaw bismillah man de eh, li nga xam ne mooy wàllu liggéey bu ñu liggéey macha allah doon naa ko depuis suñu maam euh, te aussi xam nga pour moom ku lu wax pour moom dangay dem si àll ba mais toujours nag ñun suñu liggéey lépp foofu la ñu gën a bari fii nii dañuy ñëw fii nii def ay suñu émission delluwaat dëkk ba mais toujours nag xam-xam bi yëpp gëstu nañ ko si biir Sénégal fii dugg génne Mali boo réew Afrique yi nga xam ne wóor nañu Sénégal macha allah. Euh, man maa ngi uh, jógee département Linguère. kii <laughs> waaw macha allah loolu moom dafa mel ne judduwaale la wàllu seet moom dañ ko comme namp waaw seet moom macha allah dañ koy foowe te surtout même lu gën a bari sax yooyu yitteeluñu presque dañu yaakaar nit ku ne war a yëngatu si liggéey bi première bunt mooy sa seet nga mën ko nga aay si fekke li ngay wax dara du si deñ mhm. oh. waaw man damay seete bant damay seete suuf mais li gën a taxaw mooy wàllu seet suuf bi ak bant waaw am na seet fanaan boobu nag par benn nit lay jël mais bu fekkee seet suuf bi nag doo jël benn nit dangay jël mbooloo nga benn nga calculer yi nga xam ne yi nga war a seetal ba pare nga seetal leen wàllu suuf wala walu bant. waaw man nag macha allah man seet moom yàlla def ne même kurus uh, damay li ma si munti wax dara du si deñ suuf bi tamit aussi noonu la mais toujours nag euh, nit ki doomi aadam la mooy doomi aadam dangay ñaan yàlla kese ngay ñaan doo ñaan keneen doo ñaan seytaan doo ñaan leneen bu fekkee jullit nga laa wax. wala ñun nag dañuy yëngal si wàllu ñaan si sunguf fas lañu gën a aaye foofu la gën a féete incha allah. waaw fas mooy yeewu nit euh, dañu yeew nit si fas dañu yeeweeku nit si fas dañu noob nit ci fas fas daal bare na ay façon yi nga xam ne dañ koy def si fas dañ koy def noddu tere lañ koy wax noddu tere mooy ku dem bañ ñëwaat dañ koy def si fas après mu ñëwaat bu fekkee jigéen bu fekkee góor la. Ah, waaw fas mun na indi. waaw fas mun na indi si kaw condition na day fekk nag lu bokk si moom des na si xeer bi wala mun ngeen am lu bokk si moom. waaw loolu moom alhamdulilah rabbil alamin buñ ko defee moom uh, fala bu du du si euh, biir semaine moom doo paase si biir semaine nga dégg résultat si moom. lu jóge si moom. bu fekkee mën nga am lu jóge si moom. Hmm. si yére walla dàll walla lal wala yu mel noonu buñ ko defee si loolu moom incha allah falaa boobu da ngay la réer même yooyu bu fekkee dafa am loo réer la wàllu xaalis wala wàllu alal wala wàllu or fi nga ko def. foofu ngay dindi foofu tuuti bu fekkee si yére la nga dagg foofu tuuti bu fekkee si waxande nga xoos foofu tuuti am luñ si def delloolook am foo ko def fi nga fu ñu jëlee loolu boo ko defee incha allah du passé si biir semaine nga dégg résultat si loolu. Mhm. waaw bu fekkee dañu sàcc sa yëf nga ñëw si man wala nga woote bu fekkee da nga joxe tur. ki nga foog wala danga xalaat góor wala jigéen wala nan la mel incha allahu rabbi dinaa la tetal tetal bu leer bu fekkee da nga koy jot moo wax la da nga koy jot bu fekkee doo ko jot dam lay wax doo ko jot bul yàq sa xaalis. Mhm. ci wàllu fas boobu loolu ci mhm. euh, fas dañu noob nit si fas fas dafa am fas yi nga xam ne dañ koy def euh, si ndig wàllu noob dafa am yi nga xam ne dañ koy def si suuf lal boo tey wàllu noob la. def am bi nga xam ne boo ko fase ba pare fas yi nga xam ne ngay xooj nga rocc ko si biir euh, fi nga xooj nga fekkee bu fekkee góor la wala jigéen mu naan ko wala mu lekk ko fas bi nag def am foo koy def paftaan xam nga paftaan euh, bo fas boobu day am juróom-ñaari fas-fas léegi nga ubbu ubbi paftaan paftaan dafa am benn bal bal bi ngay xaar si digg tuuti nga duggal fas bi si biir fekk daggoo paftaan affaire bi bal bi nga de bay fas bi si biir foofu après nga dem sa yoon euh, juróom-ñaari jours yi nekk yi nga xam ne ñoo nekk si fas bi du passé juróom-ñaari jours yooyu lu munti doon nga am résultat bi nga soxla bu fekkee si wàllu wax la bu fekkee si wàllu coow la euh, presque jours yi yëpp ñu ngi si biir dafa mel ni nga wax euh, alxames juma samedi dimance altine talaat alarba alxames kon jour yooyu nga jël nga bool si fas yi nit ki mënul wax wax si biir génn si biir yooyu waaw jour yooyu moom boo ko téyee kenn du wax si wax yooyu moom incha allah. Euh, bu fekkee mhm. euh, mhm. waaw loolu lu ne dafa am ay façon yu bari. dafa am yi nga xam ne ku war war a dem si yoon dafa am boo yeewee fajar boo jullee ba pare loolu bala nga wax kenn danga ka jël nga diw ko sa ak sa bot ak sa nopp ak sa tànk ak sa loxo képp ku nga xam ne nga jàkkaarloo moom nga war a wax yaa koy féete si dégg daañu déglu bët yi ñooy gis gémmiñ bi muy wax jox loxo bi muy joxe képp ku nga xam ne jox nga ko loxo sa wax rek lañu déglu sa wax mooy féete ci kaw loolu fajar mais boo ko boo ko defee ba pare eh, li nga eh, avant ngay wax ak kenn nga koy wax def bi nga julli ba pare nga def ko fekk soogoo kenn def ko nga dem yoon bi nga war a wuyu ji fekk wax nga amante problème daal. Mhm. fas boobu mën na ci làmb dara. Mhm. Mhm. ba bu ñëwee ci làmb. waaw bu dañ koy def caasu golo. waaw caasu golo du laal suuf. waaw boobu du laal suuf bu laale suuf rek boroomam baax baaxu si moom waaw dafa am yi nga xam ne dañ koy def tamit euh, mooy ñun pulaar yëndu lañ koy wax yëndu tànk yëndu ñu bari xam nañu lima wax même ba tey loolu baaxu si doomi aadama boobu mais l'essentiel li gën a am yëtte rek folo am na li nga xam ne buñ ko sangee bu fekkee nit ki nga xam ne bëgg am victoire comme mënti doon si àdduna da ngay am victoire boobu danga nga koy am. si làmbala bu fekkee ñuy xàccante place wala béréb wala yu mel noonu boo xesee def loolu sa yaram macha allah am na yi nga xam ne nag seen yaay dund moo ko mën a am ki nga xam ne yaayam dundut mënu ko am. waaw dafa am sagar bi nga xam ne sa yaay moo la koy may ñu defal la si sagar boobu nga def ko sa yaram sa ndigg nga koy def loolu nag ku yaayam dund moo ko mën a am ku yaayam dundul mënu ko am képp ki nga xam ne def na lu bon tamit day delluwaat si moom urgent waaw bul yéene nit lu bon te aussi doo dee si askida affaire yu mel noonu doo si dee même yi nga xam ne ñiy dem comme guerre dañ koy def ay gàllaaj yooyu gàllaaj yi nga xam ne fekk nañ ko ay maamaati maam ñu ngi koy def te aussi ñu jàng ko ñu xam ko ñu mun ko waaw loolu daal moo si am incha allah. boo waaw waaw ñi nga xam ne du ñu yëngatu fanu liggéey bone am na benn bone sa liggéey li nga xam ne lu mu laajte dafa am euh, fasam à côté dafa am yëngatu euh, liggéeyam à côté ba tey comme ñuy jàng ñuy def noonu yooyu tamit beneen mbir la parce que dafa am yi nga xam ne dañ koy sangu. dafa am li nga xam ne dañ koy def si biig bi nga xam ne di xaj ci wàllu place loolu tamit ba si wàllu fas bi xaw na wutee tuuti waaw mais fànn boni moom macha allah alhamdulilah yor na si lu bëree bari mais bu gisanteeg waaw bu fekkee lenn laa mën a wax mooy lan bu fekkee place bi si boppam mën nga ñëw si place bi wala mën nga dox sa tànk boo ñëw si place bi fekk sa tànk yuy tooy. ñu ngi ko tooyal munoo sangu si palace bi mais mën nga tooyal sa tànk wala nga jàppee ko nga ñëw ba si place bi affaire bi wow foofu si place bi fu mu mënti jaar palace boobu dañ koy jot bu fekkee dañ la waroon dakk si place bi kenn mënul dakk si place bi. Mhm. ci wàllu examen yi waaw xam nga garanti dafa mel ne da nga wax ne daal. alla jabi jabaay dañ koy wax pal force day am déedéet man yàlla lay ñaan te aussi jullit la te aussi lii may wax dem koy teg garanti bu wóor bu fekkee cent la quatre-vingt-dix yi ma koy liggéeyal dañuy gis di personnes yi mun nañu bañ a gis kenn ku ne ak sa biddéew bokkul ak keneen ki ak biddéewam te aussi bopp yi yemuñu nit ki dangay wax li nga xam ne sa xam-xam fu ma yem mais bul yëngatu li nga xam ne lu ñu mun munti wax si àdduna nga ne mun nga loolu yàlla rek moo ko mun dafa am li ma mun dafa am li nga xam ne munuma ko carrément boo xamee li munuma ko mun naa la boole ak ñeneen bu fekkee mun nañ ko mu boole ak ñoom mais en tant que man am naa li ma si mun loolu moom képp ku xam ne wax na ma si wàllu yu demee yooyu incha allah dinaa ko jox ay tetal wala ma jox ay ay muslaay boo ko defee incha allah day gis résultat. Euh, beneen tëju ba lépp lu mm. naa mm. ci ñoom day gën mën nga ci dara. waaw wàllu tëju mun naa si dara incha allah rabbi mun naa si dara bu fekkee nit yi nga xam ne dañu umu mënuñu am dara uh, bu fekkee xool nañu yaramam ba pare xam na luy tëj doomi aadama bare mm, na. bare na ay façon waaw bu fekkee si wàllu rab. Euh, dafa am li nga xam ne dañ koy yëngoot si wàllu yooyu loolu bu la ko jokkee si biir semaine nga koy def heure booy tiid dañ koy sangu leneen bi dañ koy suuru booy tidd nga sangu ko leneen bi nga suuru ko bu fekkee wàllu rab kese la semaine bi doo génn si biir semaine bi affaire bi jeex. rab bi daf ko tere woon ay ay ay jabar góor la loolu lépp incha allah dañ koy dindi. Euh, mhm. wàllu ubbeeku mooy weex càngat bu weex. càngat bu weex ah, dañ koy def te yooyu tamit dafa am fukki sangat juróom-ñaar yi mooy bu weex bi ñett yi mooy muslaay muslaay bi nga xam ne mooy dindi cat bot liggéey boobu ñetti la juróom-ñaar yi soog a mu nekk fukki sangat mooy yu weex wala am-am am doomi aadama yi mooy ku weex ku ñuul ku xees ñëpp a si yam nga am leen góor ak jigéen fala boo li ngay am si doomi aadama rek lay jaar du jaar feneen kon dèjà dangay njëkk am nit yi ba pare soog am dara. Mhm. yi ñi nga xam ne ni ñoo nekk bitim réew. Mhm. ñoom ñàkk seenu liggéey. Mhm. loolu solution nga waaw loolu solution am am na xam nga ñiy dem yi nga xam ne bëggu ñëwaat seen réew euh, xam nga korondoo waaw loolu si yoon korondo lañ koy dindi te si ah, dafa am li nga xam ne dañ koy def si yoon korondo xam nga koronoo booy gis muy dem def dafa yéenu dara rek muy dem wala di ñibbi ñaar yooyu mooy am buy dem ak buy ñëwaat te aussi buy dem bi day indi ji te aussi buy dellu si day indi loolu dañ koy def si loolu am li nga xam ne ñu yóbbu ko foofu bu fekkee da nga mënut woon ñëwaat sa réew di nga ñëwaat sa réew fekk yaa ngi indaale hmm. waaw loolu dañ ko fekkee dañ ko xam dañ ko jàng. te dañ ko mën du question yi nga xam ne dañuy toog di wax li nga xam ne yenewul maana daal waaw nit ki uh, dafa am li nga xam ne yàq na daal liggéey bi du bari waaw loolu tamit li nga xam ne bo nit yi nga xam ne dugg na si fekkee moomuñu moomuñu mbir bi yàq nañu liggéey bi nga xam ne ñi ko moomoon sax mënatuñ si mënatuñ si wax lenn

sa kër sa bopp bu fekkee da am sa kër boo ko nga dugal ko foofu sa kër ñeent koñ ñi nga suul ko foofu nga def ko sa yaram képp ku nga xam ne def na indi na foofu liggéey bu bon même boo gisee mu ngi koy suul wala mu muy tëbb sa tànk boo ko gëstu bu ko def wax lenn lu mu munti defaat dina delluwaat si moom ba nga gisal sa bopp loolu bu si am sikki sak bu si am ñaari xel te jafewut waaw jafewut xam-xam dafa rek mais jafewut képp ki xam ne lox lu munti def loxo mun naka dindi bu fekkee xam nga nag laa wax waaw bu fekkee wàllu porté sa yaram moom képp ku nga xam ne def na lu bon day ñëwaat si moom taf taf bul bul jéem dem feneen bul jéem def leen dañ koy sangu leneen bi nga def sa yaram rek nga jàpp sa njàmbur. Mhm. ki nga mhm. mhm. allah Euh, ñi nga xam ne euh, dañu bëgg am jikkar loolu tamit dañ koy def loolu euh, même loolu sàngar lañ lañ koy def toujours dañ koy defee yi nga xam ne ganaar xam nga ganaar boo jëlee dàggat yàpp sànni ganaar yi bu fekkee mbooloo ganaar dañu xàcc lu mu tuddat yàpp bi loolu secret boobu si loolu lañ koy boole te boo jëlee loolu dañ koy dañ koy lakk ba mu xom nga boole ak sunguf boo nga sang ko nit ki xam nga ni doon ganaar yi xàccante yàpp bi góor yi noonu la koy xàccante jigéen boobu bu fekkee jigéen bu fekkee góor tamit ba tey ñoo yem waaw loolu daal moo ci allah. Euh, waaw man alhamdulilah rabbil alamin ñu bari sekk nañu liggéey surtout nag ñi nekk extérieur même ñi yéen ñi ñiy jàng bu ñu duggee si tiitar yi xaw ma nuñ koy waxee man mosuma sekk ak kenn lu ñaaw surtout nag woo nit ki wax bu teggiwunu wala jox naa la lii jëloo ma téléphone woo naa la man mosuma yàlla di suturaal la ma si affaire yooyu yëpp man képp ku ma woo téléphone dinaa la décroché boo ma jokkee sa dërëm dinaa dinaa ñaan yàlla suñu borom bo delloo la njukkaal yow tamit li ma la defar ma jox fekkee ba nga jot ko waaw fii àdduna jaar jàll rek la ne il faut nit ki goral boppam mooy goral boppam mooy respecter sa kàddu sa wax nga bañ ci ruus waaw man alhamdulilah ñoom sekkal lépp amul kenn ki nga xam ne sama si vidéo commentaire ku wax si man lu ñaaw amut mais def naa yu bari jaar na si yu bari mais am am na yenn wax moom du ma si dugg nit ki boo gisee ñu yeb nit ki rek mooy yebloo boppam waaw dañuy mhm. mhm. mhm. waaw dañ koy ñaan yàlla de hmm. loolu si wàllu yooyu hmm. ah koy def te du question man kes maa koy def hmm. dafa am ñi nekk sama gannaaw kon déjà bu ñu jëlee décision comme samp loolu du nen. waaw loolu mbooloo ñoo koy liggéey mbooloo moo mun lépp waaw xam-xam bi du question man kese maa koy def dina gistuwaat sama yi nga xam ne ñoo ma jàngal ak sama maam ñëpp ñu jàppale ma si wàllu yooyu ñu def ko bu fekkee da nga bugg samp nit ki nga xam ne mooy nekk comme genre nu ñu koy waxee comme roi dañ koy def mais si si biir ñaan la ñaan bi du question benn nit rek moo koy def déedéet waa mbooloo lay nekk dama am gànnaaw gannaaw boobu nag il faut Fala Bodou ma dellu si ñoom ñu waxtaan si yooyu. Mhm. man dema seetaan ñuy ñuy def mais am na am na fi <laughs> far. man bi am na fi ma far daal l'essentiel am naa fi ma far ñi mbër yi nekk fii nii bari na si sama mbir lañu mais uh, man combat sama émission yëpp combat mars wala affaire élection yi nii xam nga lu tax duma ma sonn. kenn ku dañ koy fay xaalisam mu ngi tëdd xaalisam ah kenn mayoma dërëm kenn joxoom xaalisam kon dèjà dama commentaire seen wax eh, seen seen programme aw ma si jot lu tax aw ma si jot ah, kenn ku ne da am famille kenn ku ne da am gannaaw te aussi sa gannaaw ñi feete ñi feete nit ku ne gannaawam bëggul nga wax si moom defet wala affaire yu mel noonu déedéet boo waxee loolu ba pare ñu lay woo téléphone ñuy wax lii ak lii kon yaa yebloo sa bopp. man boo ma fayee milliard duma ma si wax ay combat wala ay match wala ay ay ay ay lii ay comme réew comme xaccoo réew nii déedéet man dema respecté sama waajur kon bëgguma ku ma yeb déjà loolu mun naa la wax benn dara mais fekk si suuf la mais du si ay émission déedéet loolu yàlla yàlla def na yàlla yare ma dool loolu daal loolu daal kaddu yooyu moom bëggoon naa sànni surtout nag ñi nga xam ne dugg na si métier bi ñuy taxaw si média yi di wax te fekk dara amu si ba pare taxawaat si média yi ma loolu moom ma jaaxal kon duñu du deret du gor mooy daw seen yaram daal. man daal man daal affaire bi daal dafa ma jaaxal trop dafa am yenn yi wax daal man man man mi amit bu ma ko waxee yàlla be ma tiim du ma du ma toogaat ci média di ko wax di ko waxaat déedéet. rus na du ma am kattan di wax lool ba pare di wax lii ñii moo ko dépp lii moo ko dépp kenn musu fi gis jënne ñii di wax kenn musu gis jënne. ñii di wax fi kenn musu gis jënne wax rek moo fi ne. waaw maa la ko wax. xam nga ñun seen bi boo xoolee ñi ëpp ci ñu koy seetaan. Mhm. ay amateur làmb lañ. Mhm. ñuy pratiquer mhm. moo tax làmb ji bu fekkee dafa la woo téléphone. bëgg nga seetal ko carrière gàllankoor yeeg. naka la mën a def bu jokkoo ak yow nga koo teg ci yoon ci kaw ngeen waxtaan bi. waaw bu fekkee nit ki woo na ma si wàllu carrière am wala combat am wala laa war a génne wala lan laa war a def. li ma gis dinaa la ko wax. bu fekkee da ngay am victoire dinaa la wax da am victoire bul sonal sa bopp bu fekkee da ngay am défaite dinaa la wax da ngay am défaite bu fekkee yaa ma woo téléphone laa wax mais du question ñeneen nit yi woote wala wax déedéet. waaw mbir mi day fekk kay dañu sekk dara mais bu fekkee sekkuñu dara aw ma intérêt di taxaw si média di wax wax si moom leen déedéet waaw. presque ñoom lu tax ñu dugg si liggéey bi métier la am xaalis la kon dèjà man li tax ma dugg si liggéey bi métier la am xaalis la kon dèjà il faut que li may wax il faut que am si dara moom tamit am si dara loolu rek euh, mooy euh, li nga xamante nii mën nga ko bëgg nga ko baaxee nit hmm. bëgg nga tey képp koo xamante nii soxlaam la rek bu fexee gisante ak yow pour loolu fan yi loolu ko doon lay doon. maanaam. tey bu fekkee ne. Hmm. ñi. Hmm. nga hmm. surtout yooyu yi xam ne dañu am problème kattan. néew kattan néew nga xam ne dañu am néew kattan waxuma ñi nga xam ne dañ ko judduwaale man ku judduwaale affaire am lu mu munti doon si àdduna jarul mu may woo wala dama laaj ci yooyu. munu ma ko yàlla moo ko indaale noonu kon noonu rek lay deewee bul sonalal boppam. deuxième fois li nga xam ne def la dab si yoon feebar la wala liggéey la loolu moom bu fekkee kattan bi dañ koy def buñ ko defee alhamdulilah rabbil alamin si biir li nga xam ne test buñ koy def. ñetti fan ñetti fan boo ko defee boo jëlee garab bi tey boo ko utiliser suba da nga gis moom résultat ay weer du am léeg-léeg mais da nga gis résultat mais dafa am traitement traitement yooyu nag bu fekkee da nga da am sa jabar doo ànd ak moom bu fekkee célibataire da ngay garder sa bopp ba sa traitement mot mu delluwaat carrément nu mu meloon bu fekkee feebar la mystique wala feebar uh, feebar uh, kattan waaw ñaar lay doon mystique ak li nga xam ne loolu yaa foowe sa bopp bo bo bi nga xam ne nekkatoo góor. Mhm. waa maa ngi nuyu ñëpp daal maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp euh, surtout nag euh, seen site bi maa ngi leen sant maa leen gërëm maa ngi ñaan sama mbokk yi nga xam ne taxaw si média yi di wax nañu xoolaat seen bopp bu baax a baax mais xaalis neex na mais toujours da xalaat danga am njaboot da ngay am lépp wax waxeet baaxut surtout góor nañu goree tuuti.